ramadana ngi baytul atfal ramadana di fees mbedd di feex tafsir qur'an ci biir day fees baytul atfal pastif ramadana ngi baytul atfal

Ah. Foofu la torop. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ay kay jëli suuf. moo tey sawar nga de li xew ah tey wóoru. man. Hmm. tey déedéet. tey wóoru. ndax wóoru. ndaxte man mënuma ko. la mënuma ko. man. Mhm. dañ maa yéex tey xëdduma te man dañu bàyyi bàyyi fajal ñu may doog te man nelaw moo ma gënal loo gis. ah nelaw moo la gënal loo gis moo tax waroo te dañ laa yéex yéex yéex xëdd ah baax na loo ci xamul Omar day bàyyi ba ñu ndogu ba pare mm. mu nelaw ba heure bu ko neex mm. muy soog jóg ndogu te boo ko te boo ko yeewee ne ko jógal nga julli mm-hmm. muy jaay gëm yàlla. bay nelaw toog toog toog ba heure bu ko neex muy soog a jóg laal si jaada bi pour julli. Omar bu fekkee ruqee li mu wax yaa ngi koy def bi boo nga bàyyi ko yow loolu sax moo gën parce que bu fekkee yeex nañ laa yee nga jóg xëdd heure boobu moo gën a baax sax bu ëllëgee heure boobu bu ñu la ko yeewee mën ngaa jóg parce que ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ciy fekk ni yéex a xëdd dafa bokk ci li nga xamee ni dafa bokk ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa kon bu fekkente nii heure dog jotat na gaawal nga jóg dog même bu fekkee da ngay lekk benn tàndarma nga def ko bu fekkee xëdd bokk na ci njariñ yi mu am mooy barke bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonent bi sam xamal nañ ñuy xëdd dafa am barke loolu kan moo xam ban xadis moo ci ñëw ku xam ban xadis moo ci ñëw asma tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na de leen faral di xëdd parce que xëdd bi ngeen xëdd ak li ngeen lekk ci heure woowu ak ci waxtu woowu am na barke bu ci nekk mën na leen indi sax barke kon xëdd dafa baax nañuy xëdd te dañ koy yéexee tamit waaye bokk na tamit li tax li dox suñu diggante ñun ak ahlul kitaab mooy li wuutale suñu koor ak kooru ahlul kitaab mooy ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen koor day ànd ak xëdd loolu am na ab xadis ñu ci jëloon kan moo ñu koy fàttali. faslu ma bayna siyaana wa siyaami ahlil kitaabi mhm. ak latu gis nga nee na faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahlil kitaabi ak latu li dox suñu diggante suñu koor ak kooru ahlul kitaab ahlul kitaab bu ko waxee mooy al yahuud wa nasaara ñoom ñooy ahlu kitaab li ñu wutile suñu woor ak seen woor ñoom mooy ñoom xëdd defuñ ko farata ak xëdd sax boo boolewuñ ko sax seen koor wala joxuñ ko yitte waaye xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëdd daf ci li nga xamee ni moom la ñuy def ci suñu koor kon loolu moo dox suñu diggante ak kooru ahlu kitaab kon yéex xëdd dafa bokk ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye teel a dog tamit dafa bokk ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na laa yazaalu naasu bi xayrin maa ajjalul fitr nit ñi du ñu denc di nekk ci yiw fii rek ñoo ngi gaaw di dog kon gaaw a dog bokk ci sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam kon Omar loo ko def bàyyi ko dégg nga tayib ramadaana ngi baytul atfal ramadaana ngi baytul atfal ramadaana ngi baytul